الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتبارك الحركات وتضعف الحسنات ثم الصلاة بأكملها مع السلام بأتمه على أشرف خلقه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 di dellu siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci wàllu diine diine mi nga xam ne junjaloon naa la ko moo taawloo islaam tofal ci al imaanu caatloo al ihsaanu ku mu ci ñetti doomam yile juraloon na ko ay sët lu mel ni doomam ji taawam di islaam jural na ko juróomi sët oh, waaye tamit ñaareeli doomam di imaan jural na ko juróom benni sët ñetteeli doomam di caatam di al jural na ko ñaari sët tuddaloon naa la sët yooye yëpp xataa ba tuddaloon naa la sax ñoom ñii gannaaw bañ nekkee di ay sët juralaat nañ diine ay sët sëtaat te mooy maqaamaatu diini islaam ñetti maqaamaam ya te waxoon naa la ko ba tey timit al imaanu ak ñetti maqaamaam ya waxoon naa la ko aadaab ya waaye timit al ihsaanu ak ñetti maqaamaam yi ma daane woon ak yow nga xam ne moo doon al muraqabatu ak mushahadatu ak maarifatu waxoon naa la kenn ku nekk ci ñoom tamit ak i ay teggi hinam yam làmboo dëxaloon la nag ne dama lay wax rekk ne la daal al ihsaanu mii di caatam diine jural ko tabaarakallaahu ñetti sët ñaari sët ya di al muraqabatul kubra ak jural ko ñetti sët sëtaatam ya moom mooma nag ci la lu ñuy tuddee tasawuf ci la génn moo tax tasawuf bi baat bi moo bees waaye comportement ba mosu fee jukk comme ni nga xamee ne baatab fiq dafa bees waaye xam-xam ba di xam-xamu fiq ki ko dégg ñu koy tuddee alfaqiihu ña ko dégg ñu leen tuddee alfuqahaau booba melakaan ak xam-xam ba musut fee jug waaye baat bi nag bees ta comme ni nga xamee ne baatam naxu dafa judd di lu bees waaye xam-xam ba mu ëmb muy naxu ña ko man dëgg ñu leen tuddee nuxaat yi bu ñooña musuñ fee jug waaye xam-xam bi tamit musu fee jug comme ni nga xamee ne xam-xama balaga baat bee juddu waaye xam-xam bi musul fee jug ña ko xam ñi leen tuddee albulagaaw tamit musuñ fee jug naka noonu tamit tabaarakallaahu li ñuy tuddee yeneen xeeti xam-xam yi ci des yépp baat yaa juddu waaye comportement ba ak jëmmi xam-xam ba mosut fee jug waaye dafa amoon aw niir wu rëy wu leen nëbboon niir woowa nag ba mu demee ba muureeku lën lëm nëbboon lépp feeñ ci biir lim lim lim muuroon ba fi yonent bi di nekk daal tabaarakallaahu benn xam-xam rek lañ doon yëkkati ko di ko siiwal mooy alkitaabu muy alquran ñaareel ba buñ ci amee bu ñuy tofal mooy maanaam lu ñuy tuddee sunna waaye moom sax booba sunna yi muy pratiquer lañuy jël di ko xam la muy wax tamit ñi koy takk waaye dafa doon tere ñi bind ko mu ne bu leen bind hadis yi ndax xeet ya leen jiitu woon li leen alak bu seen waxi borom wàccee ñi bind bu seen waxi yonantu bi waxee ñi bind dem ba seen ñaari wax yooya jaxasoo waxi seen borom baag waxi seen yonantu kon da leen bind alquran waaye bu leen bind danaa la wax ba mu toppee ci waxtaan yi kan mooy ki njëkk a bind ak jan jamono lañ commencé bind hadis yi bu ma la ñëwalee ca fànn googaak kutubul hadis yeeg ruwaad yeeg nam daan ñëwee ak jamono juñ ko njëkk a ak nam demee yëpp danaa ci kon dafa mel ni li gënoon a rek mooy alkitaabu waaye kitaabu bii di alquran moo ëmb mbooleem fànn yi ma tudd moo ëmb fiq moo ëmb taarix moo ëmb siira moo ëmb naxu moo ëmb balaaxa waaye booba téere bi lañ doon hittewoo ngir xam ko waaye matière yooya mu ëmb doon woon lu ñu yittewoo di ko xam ba kenn ku ne ku ca fànn wu ñuy wax ni kii nax naxwiyu la walla kii luxawiyu la wala kii faqih la euh, euh, ak yu mel noona booba loola amutoon booba baatab alquran di alkitaabu li ëmb loola moo leen nëbboon yooya yëpp bañ demee ba maîtriser téere bi nag jamonoy saaba yi ñi ñëw maîtriser ko ci jamonoy taabiina yi ñëw a ñëw ba ci taabiixu taabiixina yi te booba nag matière yi nag gën di feeñ nag matière bu ne ak ña ca def taxassus matière bu ne ak ña ko man man man ko di ko jàngale ñu commencé nag école yi génn ci benn école bile di école ab diine di école ab l'islam di école ab sayduna muhammad salaa salaam ñee génn ca ci biir école bi ñu leen tuddee fuqahaaw yi danaa ñëw ca ñooña ñii génn ki ñu leen tuddee maanaam bulaxaaw yi ñii génn ki ñu leen tuddee tabaarakallaahu fusahaaw yi ñii génn ki leen tuddee noxaat yi noonu tamit la ke nga ca génnee nga ca génnee mutasawifuna yi kon alquran a ko tunkum baat bi comportement bi mosu fee jug baat bi rekk moo juddu comme ni baat yooya ma wax la juddoo waaye comportement bi moom mosu fee jug ci jamono yonent bi ci jamonoy saxaaba yi ci jamonoy taabiina yi ci jamonoy taabii taabiina yi ilaa yawmina haza ci ña ko meraxoo ba ci suñ jamono ji moo tax baat bi alquran moo ko tunkumoon melokaan wa tabaarakallaahu sunu si yonent bi tunkum ko ak melokaan waa comportement ba waaye booba tamit ni alquran ëmbee fànn yi te nëbbu leen ni la amoon ay baat yoo xam ne tamit moo nëbboon ba mënuñoo xeg si woon ci baat yii booba jamono yonantu bi baatab saxaaba moo nëbbu bépp garaat bu ñu di takkati ndax baatab saxaaba dafa rëy ku doon ñu ne saxaabiyu la booy jigéen ñu ne saxaabiyatu la booba loo mën a donati ak loo ca am taxamuq wala nga am ci tabaxur du feeñati booba daal benn garaata fi ne bi ñëpp di njëkkalante mooy fexe ba nekk di saxaabi yu loo rek la loo mën a nekk tamit kenn du la ko tuddee saxaabi bi nga xam ne yonentu bi sallallahu alayhi wa wax ne inna allaha fadala ashaabi ala jamii alxalaiqi siwa al anbiyaai wal mursalina yàlla gënal na sama saxaaba yi ci mbooleem mbindeefu yàlla yi lu dul yonantu yi di anbiyaawu yi ak mursaliin yi ku dut ñoom sama saxaaba yi ñoo la gën booba nag ñëpp a ngi daw di njëkkalante fexe bokk ca saxaabaayu sayduna muhammad yooya moo tax loo mën a doon tamit kenn du la ko tuddee booba nekk saxaaba mooy lépp ñaareel bi bi demee ba saxaaba raaf baneen garaat jug muy taabiina yi loo mën a doonati duñ la ko tuddee booba baatab taabii yu rek nga nekk ko jë doy na garaat ndax benn garaat féetewut ko kaw gannaaw yonantu yi ci anbiyaawu muslimiin yi ak saxaaba moom moo jël troisième place loolay demati tamit dañoo ña raaf taabii taabiina yi nag door a ñëw ca la imaamu di bokk booba tamit booba baat rek moo nëbbu mbooleem baat yi waaye nag comportement bi moom mosu fee jóg ndax ci maqaamaab ihsaan mi bokk ci diine ca la bokk kon maanaam tasawuf xam-xam la ndox la mu bàyyeekoo ci teenab diine mosu cee jóg kon nag kon taabiina yi ñoo ñëw wax naa la saxaaba baatab saxaaba nëbbu ndax ngëneel yu rëy la ba yàllaa ngi tagg saxaaba yi ak seen ngëneel yi ne laa yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qaatala ulaayka azamu darajatan min lazina anfaqu min baadu wa qaatalu mu ne saxaaba yi ñaari catégorie lañ ñi dugg ci diina ji njëkk fatxu Makka joxe seen alal gàddu seen jaas yi xeex défendre diine mënuñoo xem ak ña doon ay saxaaba gannaaw fatxu Makka door a joxe seen alal door a jël seen jaasi xeex ñoom ñaar ñi xemuñu martaba kon nag ku ñëwati seen gannaaw ñoom ñaar ñi le mënoo xem ak ñoom ñaar martaba moo taxoon Cheikh na Ahmada Tijani biñ ko laajee xutbu samaan bi hëpp doole ci jamono bu la neexee nga ne sax xutbul aqtaab bi hilif xutbu yëpp moo mag ab saxaaba ku ci hëpp martaba Cheikh na Tijaani ne saxaaba bi gën a suufe daraja donte ku suufe daraja amul ca ñoom waaye saxaaba rek waaye nekkul maftu àll yi moo ëpp doole xutbu bi hilif jamono lépp ak génération bu mën a bokk comme nuwul saxaaba mu misaal ko ne dafa mel ni naawu porentaan ak doxu melentaan mu ne ku dul saxaaba moo mën a ràngoo garaat boo mën a takk porentaan maanaam melentaan nga ci kanam porentaan saaba yi ñooy mooy ñooy ñooy maanaam porentaan yi te xam nga ne ab porentaan di am picc li mu naaw ci benn seconde melentaan mën na koo dox ci fukki junne xatu taxu matal ko moo tax la Cheikh na Tijaani wax ci Jawaahirul Maani maam xalifa ngi koy way ne wa qaala inna sayrana bi nisbati li sayrihimoo mislal qataa wa namlati kon kooku du jël benn taalibeem di ko comparer maqaamaam ak ab saxaaba ndax xam na ñooñu lañ am xam na seen may fa mu toll xam na seen may gi leen yàlla may nga xam ne kudul ñoom dugaloo yonantu yi amuloo ko kon loolaa nëbboon ak ngir tagg wuré leen yàlla tagg tagg waa lansaar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 gannaaw ba kooku génnee àdduna di Aboubacar Siddiq ki leen wuutuwaat ci ñoom la bokk di Seydina Omar gannaaw ba mu génnee àdduna ki leen wuutuwaat ci ñoom la bokk Seydina Ousmane gannaaw ba mu génnee àdduna ki leen wuutuwaat di Seydina Aliou ca la bokk ñooña seeni maqaam ak seeni martaba yàlla ma leen ko jox doo nga ko xam waaye mbindeef lot ba ci xam niñ toll. léegi nag gannaaw loolu timit taabiin yi ñëw garaat boo mën a takk boo xeboo dencil dootul grade boo am ci armée bi boo xasee nekk ci kanam général bi sa grade dootul feñeti boo yeboo di lieutenant nëbb ko boo yeboo loo mën doon nëbbal noonu la mel ñii ñooy généralul islam maam xalifa ne ulaayikal qawmu xaqan ahlu tuqaa wal maali usuudu xarbin naharan ruhbaanu bardil layaali asnal ilaahu alayhim bima tala kulla taali bi annahum xayru qawmin akrim biha min xisaali ba taabiina yi ñëwee tamit garaat boo mën a am boo booyee boo ngay fëq denc ko du feeñ booyee boo di suufi yu denc ko du feeñ donte booba xam na benn benn ñu ko don waaye ña ngi ko denc feeñut soo xeboo di nax wi yu denc ko du feeñ waaye booba benn ba rek moo fi nekkoon muy taabii ndax li yonantu bi ne inna allah maanaam afdalul quruni qarni saxaaba yi dem mu ne suma lasina yelluunahum suma lasina yelluunahum taabiina yi ñëw taabii taabiina yi ñëw ci hadis boobu gannaaw nag ba ñaari génération yi yëpp raafee ci la garaat yi commencé nag di feeñ benn par benn garaatab kii yàlla may taxassus ci xam-xamu balaaxa ñi mën a taxaw ne kii baliix piir la su ñoom ñii ñu ne wala ñii bu la piir lañ ki yàlla may ci fasaaxatu ñi mën a taxaw ne kii fasixun wala ñu ne ñii fu saxaawu lañ ki yàlla may ci xam-xamu fiq ñu ne kii faqih piir la wala ñu ne ñii ay fuqahaawu piir lañ ki yàlla may ci xam-xamu naxu ñu ne kii naxwiyu la piir suñu bëree ñu ne ñii ay nuxaat piir lañ naka noona tamit la dem ah, ki yàlla may ci xam-xamu tasawuf ñu ne kii suufiyu la suñu baree ñu ne mutasawifuuna lañ grade yay feeñ grade yay feeñ grade yay feeñ benn par benn ka ca garaatam njëkk feeñ ci wàllu xam-xamu tasawuf nekk ab suufiyu mooy abu hashim as suufi kooku mi ngi bokk ci taabici taabicina yi moog imaamu malik bokkante nañ jamono ndax moom mi ngi génn àdduna bi gàddaay gi amee téeméeri at ak juróom fukk kon moom Malick fekkante nañ jamono ndax Malick a ngi génn àdduna bi gàddaay gi amee téeméeri at ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar kooku la njëkk xam di ko tuddee ko baat boobu di ko ko dàkkantalee muy Abul Hashim as-Suufiyu boo booba imaamu Malick a fi moo tax kon xam-xam bi yàgg na fi moo mu nekkoon fi moo taxoon moom ci boppam mu wax wax joo xam ne fees na pepp ci téere yi mutasawi fii na yi Malik nee na ku yàlla may nga géejuwu ci xam-xam bu ñuy tuddee fiq waaye sa xam-xam lépp foofa rekk la xem yow daal faqi yi piir nga waaye xam-xamu tasawuf mosoo ca dara laaloo ca dara xamoo ca dara imaamu Malik nee na kooka faasiq la mu ne tamit ki yàlla may mu géejuwu ci xam-xamu tasawuf waaye wàllu xam-xamu fiq xamu ca dara laalewu ca mosu ca Malik nee na kooka sindiq la mu ne ki leen boole ñoom ñaar géejuwu ca boole mos leen kooku mooy ki dëggal dëggal goo xam ne nii gu sell sell la kooka mooy koo xam ne nii mat na mat goo xam ne gu mat sëkk sëkk la kon xam-xamu tasawuf li muy tekki mi ngi fi woon ci jamonoy e maanaam imaamu Malik radiallahu taala anhu mi nga xam ne moo daan wax wax ju siiw jooju ma wax la ko te danaa la ci yegg sil mu daan wax ni man tafaqaha walam yatasawaf faqat tafassaqa wa man tasawafa walam yatafaqah faqat tasandaqa wa man jamaa baynahuma faqat taxaqaqa lii la imaamu Maalik wax boo demee ca awaariful maarif ca téere booba da ko ca fekk boo demee ci taalif bi nga xam ne imaam Ahmad Farouq def na ko tabaarakallaahu tamit da nga ko ca fekk boo demee ci ar-risaalatu shaafiya da ko ca fekk wa yeneen kutub yu mel ni ihya wa ulumi diin ak yu mel noona boo demee tamit da ko ca fekk kon baat baa ngoog Abu Hashim lañ ko njëkk a wax ci jamonoy taabi'i taabi'ina yi lañ ko waxal baat boobu mu moom di ko ko dàkkantalee ne abul hashim as naka noonu Malik mi wax lii tamit xamoon na ko dundoon na ko comporté woon na ko imaamu Saafi yu noona imaamu Ahmad noonu Abu Hanifa mi nga xam ne sax taabi'i bi la moo leen ca jiitu moom tamit noonu waaye booba nag baatab taabi'i yi moo nëbbu lépp lu dul moom mën ta lii ma wax la kon demal ci awaarif tabaarakallaahu awaariful maarif lii tabaarakallaahu nga xam ne wax naa la ko boo demee tabaarakallaahu tamit da ko ci fekk gannaaw si gi nag bañ ñëwee ba ci jamono yi taabiina yi loolay jeex ngi dugg ci taabii taabiina yi ñu ci bëri seen bakkan màmm tabaarakallaahu lu ca bokkut dugg ko ñu dëgmal jëm àdduna aada yi bëri maanaam saxaar yi fi bëri ci wàllu àdduna poñetam àdduna mi nit ñi topp ko ñu ci bëri ñëw wéetoon nag di tànn jëf yuñ gërëm ya melokaanoo melokaan yuy kawe ya ñi nekk ñu sell ci ak déggin di sell nañuy doxalee tabaarakallaahu seen diine ñooña nag lañ waxoon na ñii nag ñooy na yi baat ba nag commencé feeñ nag di ñëw ba commencé di feeñ foofa la baatab suufi yu commencé di feeñ ñu tuddee ko ñooña lii ma wax la demal seeti ku ñuy tuddee ibnul arab ibnu saahi ibnul arab ibnu saahi ci téere mu ngi tuddee albughyatul mustafid ci sharha munyatul murid fi muy waxee ci abyaat ba muy wax bayti ba may wax ne su martaqat himmatuhu l aliya ila tibaaci saadati suufiya boo demee da nga ca fekk euh, tabaarakallaahu mawlaana saydil arab ibni saahih wax wax jooju ci ci téere boobu nga xam ne moom laa la delloo kon da yëg ne rek comportement bi moom mu ngi fi woon jamono yonent bi sallallahu alayhi nekk fi ci jamonoy saxaaba yi jamonoy taabiina yi jamonoy taabii na yi waaye nag baat bi moom ci jamonoy taabiina yi siiwutoon ndax boobu nekk ab taabii yu mooy garaat bi gën a kawe ci jamonoy taabii taabiina yi ko woon waaye siiwutoon gannaaw nag ba ñetti seekal yooya raafee nag ci la baat ba nag fëll nag comme ni baatam naxu ak baatam balaaga ak baatam mantiq ak baatab siira ak baatab taarix ak baat yu mel noona ni ñu feeñee ak benn bu nekk jamono ji ngay feeñ donte ñoom ña bokkuñu jamono juñ feeñ kon noonu la demee moo tax kon baat baat baat baa ngi fi woon ci jamonoy Malik ba tax Malik mi nga xam ne mooy imaamu daaril hijrati moom ci boppam moo wax ne man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tasandaqa wa man tafaqaha wa lam yatasawa faqad tafassaqa wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaqa dellul ci loolu la Malick wax ku man tasawuf géejuwu ca te sa xam-xamu fiq rafetut sindiq nga ku sa xam-xamu fiq rafet te naanuloo ci géej ak tasawuf faasiq nga ku leen boole ñoom ñaar yaay ki sellal yaay ki dëggu boo demee Cheikhu Ahmad Saruq borom xam-xam bu mag boobu ci qaidatu rabia min qawaidihi moo ko wax ne loolu imaamu Malik moo ko wax boo demee tamit a Cheikh Jasuus wax na ko ci sharha buñu tuddee tuddee tasawuful mu muin naka noonu tamit al alaamatu ibnu daniya maanaam a ribaati yu wax na ko ci téere bu ñu tuddee tahrirul manaat wal masalik kon naka jekk baat baa ngoog muy tekki ne kon jamono taabi yi ne mi ngi fi mais fëlutoon bu baax jamono taabi taabi yi ne mi ngi foon waaye fësutoon ndax ñaari garaat yooya ñoo ko nëbboon gannaaw nag ba garaat yooya nag demee ba passé ko ku ca bokk doo ko gisati euh, léegi nag baat bi nag fël comme ni yeneen baat yi ni ñu fëlee kon noonu la demee demal ca téere bu ñu tuddee kasfu hunoon mu wax xam gi jëlee ko ci imaamu Qusayri yu wax na ko nee na baat bi ci tasawuf feeñ siiw na ci yu mag yi ci jamonoy gannaaw bi taabiina yi ak taabii taabiina yi raafee moo tax mu ne laata gàddaay gi nag di mat ñaar téeméeri at rek ba muy jeex ak baat bi nag commencé na fés nag di feeñ moo tax nga gis kiñ ko njëkk a tuddee dañ ko koy wax di ko ko dàkkantal booba gàddaay gi amagul ñaar téeméeri at téeméeri at ak juróom fukk la di abul hashim as-suufi yu mi génn àdduna téeméeri at ak juróom fukk ci gàddaay gi imaamu malik mi tamit nga xam ne moo wax wax ju siiw jooju ma wax la léegi booba mi ngi dund moom mi ngi génn àdduna bi gàddaay gi passé téeméeri at maanaam ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar kon wax jàngoo waaye naka jekk nag moom mi ngi fi ña ko gënoon a comporté woo ci saxaaba kenn rawu ci woon Seyduna Aliyu moom bokk na ci ñi ko gënoon a comporté woo ci saxaaba yi melokaanoo ko danaa la wax ak euh, moom ak lam joxe woon ak fa mu jaar yëpp danaa la ko wax ak ci ay taalibeem baat bay ñëw nag di dem tabaarakallaahu ñu koy waxee ak yeneen maqaamaat yee mel ni maqaamaatu wilaaya ak yam ëmb ñu di ko waxee demal ci jalaalu diini imaamu suyutiw ca téere bu ñu tuddee soxodul mataaliya boo demee ma ngi fay toxal wax yi imaamu suyutiw mi nga xam ne moo wax ne inna awala man takallama bi misra fi tartibil ahwali wa maqamati ahlil wilayati zunnunil misri wa inna awala man takallama bi baghdad fi mazhabi sufiyati abu hamzata muhammad ibnu ibrahim al baghdadiyu assuufiyu wa inna awala man takallama fi ilmi alfana walbaqa abu said ahmad ibnu isa al garras al baghdadiyu cheikh suufiyati min talaamisatihi zinnuuni min talaamisati zinnuuni mu ne dafa toxal waxi jalaaluddin imaamu suyuti yu mu mag moomu ngeen xam mu ne ki njëkk a waxee mbiram tasawuf boo jëlee maanaam misra gi yëpp ki ko njëkk a waxee mooy Zunnunil misri yu borom xam-xam bu mag boobu ki ko njëkk a waxee ci Bagdaad mooy Abu Hamza tamit ngeen xam ki ko njëkk a waxee tabaarakallaahu ci ci ci ci Bagdaad ci yeneen fànn moom tamit tabaarakallaahu mooy eh, Abu Saïd Ahmad ibnu Isa al-Gharraz al-Baghdadiyu su ko defee nag. noonu baat bi ñëwee comportement bi nekk ci jamono yonantu bi ci jamonoy sahaba yi ci jamonoy taabiina yi ci jamonoy taabii taabiina yi waaye baat bi tamit nekkoon ci jamonoy taabiina yi ak taabii taabiina yi waaye garaat yu gënoon a kawe moo ko nëbboon ndax moo doon yooye garaat mooy général yeneen yi des yëpp yeneen garaat la yu nekk ci ron général ba taxutoon feeñutoon ba yi yëpp raafee nag ci la yooyu door a feeñ moo tax kon baat bi tamit di baatab as suufu fu mu xaree muy baat bi fu mu bàyyee ko boroom xam-xam yi dañ cee wute moo tax boo demee dañuy wax ne baat bi ci boppam imaamu Saroox wax na ko gaa yaa ngi koy définir lii la lii la lii la ba mat ñaari junne maanaa indi nañ ko ci waaye bala ma laa andil maanaa yooye yenn ya te maanaa yooyu yëpp duwut wuutee boo ko dàqee ci benn rekk lay jublu ci lay dellu tamit dama lay indil baat bi lu ko nuñ koy firee ak fu mu ko baatab suuf baatab suuf ñu ci bëri ñiñ ko xamee dañ ne mi ngi bàyyi ko ci baatam ngëndal mooy mooy lin yooyu ñuy liggéeyee yëre yi ñuy sol ay coton ak yëre yu mel noona ndax booba seeni nit ña ña ca jàppoon gannaaw bi jamonoy yàqu ki jamonoy taabixi taabixi na yi ñu bari seen kan ya maam mu jëm ci àdduna ña beddee ko woon topp diine di ko sellal dañoo dëddu woon àdduna ca colaayu yonantu ya di sol ay leen ay ngëndal yëre yu yëre yu xoyof yu ñàkk solo yooya boppam lañ doon soo moo tax boo ne tasawafa fulaanun rek mooy isa labasa suufa comme ni ngay wax ne ta xamasa isa labasa xamis boo ne ta xamasa fulaan mooy nit ki mbubbu na mooy sol na mbubb rek bon tamit a sawafa mooy sol na yëre suuf muy ngëndal yooyu moom la moom lañ ràbbee yëre ba mu sol noonu la ko imaamu Kusayri yu firee te téere mu ngi tudd Risaala ci safa téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent muy cent soixante quatre boo demee na ko ci fekk <coughs> ndax booba ñoom dañoo delluwaat seen bopp rek ca ca ca laayu jiitu yooyu ñu ne yonent yooyu sol te danga la ko wax yonent bi moom la daan sol daana ko sol yonent yàlla Isa daana ko sol. moo tax boo demee ca imaamu Sahrudiyu borom xam-xam bu mag booba ci awaariful maarif mu ne ñi nga xam ne dañoo nekkoon mutasawi fii nag dañoo wutoon ak nit ñi ci colaayu puukare yu yañ daan xool di dem di dellu ci sol ay ngëndal. ay lin coton yére yu mel noona ba tax tamit ñi far tuddee leen loola euh, waaye euh, euh, baat bi moo sosu waaye comportement beeg dugub mosu fee jug colaay gi tamit moo fës ke noona rek waaye colaay googu sax mosu fee jug demal Abdullah ibnu Ali Siraaj ak Tuusi loolu la wax ne baat bi duhut lu sosu tur wi duhut lu sosu Xasan al moom ci boppam jotoon na mbooloo mu bëri ci ci ci saxaba yi te moom ci boppam moo waxal boppam ne ya suufiyan yatuufu bil kaabati mu ne gis naa benn suufi mu xasul bisri yu bi nga xam ne dund na ak saxaba yu bëri ne man maa gis benn suufi yu mu ngay wër kaaba ga ñu ñu ñu ñu ñu proposé ko ay weccat bu doon léegi nga ne ay fiftin ñeenti fiftin mu ne soxlawuma ko ngir dëdduwaat na xam ne boo xasee dund euh, maanaam tasawuf yow daal da ngay fexe ba doo moom dara waaye dangay ngay fexe ba dara du la moom yàlla rek moo lay ñor dëggal sa jubluwaay jëm ci yàlla rek moo la ñor loolu kon yàgg na fi muy tekki ne kon jamonoy saxaaba yi sax mi ngi fi waaye booba nag melokaan waa fi waaye garaat garaatab saxaaba moo nëbbu lépp ba tax na baat bi feeñu toon ci taabiya yi nii mi fi waaye garaatab nekk taabiya yu moo moo ko nëbboon ba tax na fesutoon ci jamonoy taabi'i taabi'iina yi mi ngi fi waaye garaatab nekk loola moo ko nëbboon ba feeñutoon ba yooyu yëpp raafee nag nekkatuñ fi gisatoo ku ca bokkati ci la nag tabaarakallaahu fés bañ mën a xam ne ñii ñoom la. su ko defee kon nag mu ne ñoom dañoo jagoon sol tabaarakallaahu ay lee ngir toroxal seen bopp delloo seen bopp ci yàlla. nañ ko daan defe na ko daan yonantu ya daan defe ndax kat ñëw na ci hadis yonantu bi ne marra bi saxrati min arrawxaa'i sabuuna nabiyan xufaatan alayhim alabaau ya ummuna albayta alxaraama yonantu bi ne doj wii ci rawxaa juróom-ñaar fukk yonantu romb nañ ko fi daan sàndaaño duñ sol dàll sol ay yére yu ñàkk solo yu xeebu di jublu néegam yàlla ba dem di dem di haji wér na tamit ne sayduna isa kaana yalbasu suufa ñu ne yonent yàlla isa yére suuf la daan sol muy lee ba tey tamit boo demee ci hadis kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yalbasu suufa yonent bi dafa daan sol suuf yori ngëndal yooya ibnu Mas'ud a ko wax mu ne yonantu yi ibnu Mas'ud moo génnee hadis bi mu ne kaanal anbiyaaw yarkabuuna alxumura wa yalbasuuna suufa wa yaxlibuuna shaata demal imaamu tirmisiw moo solo hadis bi jëlee ko ci hadisu ibnu Mas'ud yi mu ne yonantu yi ngir wàccee seen bopp mbaam lañ daan war yërey suuf lañ daan war door bi ratt ay gàtt di naan ca soow ma ngir ak wàccee seen bopp ñii nag ba jamono yàqoo ñu bëri seen bakkani maam mu jëm ci àdduna jëm ci bëgg àdduna ak ay taaram lañ delloo dellooxaat seen bopp te colaayu yonantu yaag seen lekk yaag seen tëddin ya ngir wàccee seen bopp Omar kenn melul ni moom ci dëddoo àdduna danaa ñëw ci histoire am yére yu ñu dëbbu daaxee la daan sol ñu daaxee ko fu nekk danaa ñëw ci histoire am gannaaw bi ma ñëwee ci Aboubacar ñoo ñoo ñëpp wan la ko ne daal comportement bi mosu fee jukk kon ñu ne baat bi baatab tasawuf mi ngi bàyyee ko ci baatab suufu ak suuf ji firi ngëndal loolu mooy première bi yeneen boroom xam-xam yi ne ñaareel ba ñu ne mi ngi bàyyi ko ci ak suufatu ji firi leen wittan wi ñuy sànni ci kaw suuf ngelaw li di ko xenu fu ko neex yóbbu nga xam ne dafay dellu ba mel ni la alquran tuddoon yawma yakunu naasu kal farashil mabsuus wittan wu ñu wulli wa jibaalu kal ihnil manfuus loolu lay wuti ñu kon baat bi mi ngi bàyyi ko ci as suufatu muy tabaarakallaahu witteen woo xam ne dañ ko wulli ba mu nooy nepp fu ko ngelaw li fekk rek yóbbu ko seeni borom tamit noonu ña ko ña ko ña ko mel lañ mel dañoo nekk ñoo xam ne ñu xoyof lañ kenn diisuñu gisuñu rëy ci seen bopp gisuñu ko ci keneen kuñ gis foog nañ ne yaa leen gën ñoom ñoo la gën a xées dara tënkul leen dara tamit jëngut leen dara xiirut leen kon noonu la mel kon ñaareelu maanaam maangook ñetteel bi ñu ne baat bi sax mi ngi bàyyi ko ci suufatul xafa xetu doq ndax foo ko jubale sa dox gi nday joor mu jóg nga bëgg a gannaaw ñëw nga bëgg a mu ñëw mu ne ñooñ ña ko melokaanoo noonu lañ mel moo tax mu ne min suufatil xafa li maanaam noonu la mel ndax fa suufu hayi nun layi nun kamaana suufiyata kazalika wa lisa qaala cheikhu abu xafs al asfaasi inna hada al lafz mustamilun ala thalathati ahrufin ñu ne kon noonu la baat bi mel ñenn ñu ne abul abul faas moom dafa wax ne boo jëlee baatab suuf dafa ñetti xaraf moo ko composé benn bi saat la mu ne saat gi li mu junj mooy af safaawu ña ca bokk dañoo sell waaw gi moo ca tegu mooy alwafaawu ñu ca bokk dañuy matal kóllëre kóllëre yooyu ñu fasante ak seen sëriñ ya ci matal awraad ya ak la suróot ya làmboo dañ koy matal ci yàlla wax ne yaa ayyuhal lazina aamanu awfu bil uquud ak li yàlla wax ne wa awfoo bil ahdi innal ahda kaana masulan yooyu dañ koy matal faaga nag mooy jeex takk fanaaw jeex takk tabaarakallaahu euh, maanaam ci yàlla jeex takk tabaarakallaahu tamit ci poñet pëngetu àdduna gisuñ ca dara ba maam xalifa ne woon euh, maanaam laysa tamayusu bil malbuusi siimatuhum wa fii fanaayi fanaa in rutbatu suturi loolu la ko waxee ca kibritul ahmar mu ne tamit euh, euh, ñetteel bi wala ñeenteel bi ñu ne baata suufiyu ñu ngi koy askane koo ci ahlu suffa ñooñ lañuy roy mooy ña dëkkoon ca jàkkaay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñooñ matoon nañ ñu ne ñeenti téeméeri nit am na ñu ne sax mat nañ juróomi téeméeri nit abi hurayra moo leen jiite woon di nit ñu sell baax aaya alquran bu wàcc ñoo koy njëkk a mokkal xadis bu yonantu bi wax tere woon na bind waaye ñoo koy ñu mokkal ko ñu nekkoon ñoo xam ne dañoo ñàkk waaye seen comportement boo leen gisee da ngay foog ne jeexaluñ dara ñoom la alquran di tàgg ne lil fuqara alladina uxsiru fi sabilillahi laa yastatiuna darban fi l ardi yaxsibuhum aljahilu agniya min attaafufi taarifuhum bi séemewum laa yasaluuna annaasa ilhaafan ñooñu ñoo moom loolu maanaam tabaarakallaahu suratu baqara ñi tànn xëbal lii jeex ci liy des fa aasaru maa yabqa ala maa yasna boo demee ci imaamu Kusayri wax na wax ji ne baat bi ci ñii la bàyyeekoo mooy ahlu suffa te ñooñu yaakaar naa ku jàng histoire jàng siira wala nga jàng taarix saaba yi tabaarakallaahu tamit xam nga ñooñaak seen seen taxawaay seen comportement ak seen nañ nañ nañ nañ meloon ak bëgg gi nga xam ne bëggoon nañ ko yàllaak ak nañ ko taxaween kon baat bi xaruwaay bi ñeenti maanaa yi la ci la ci tabaarakallaahu boroom xam-xam yi wax ah, wax naa la ñeenti maanaa yëpp benn bu nekk tabaarakallaahu delloo naa la timit baat baa ngoog ak xaruwaay ba noonu timit ñu wuutee ci xaruwaayu baat bi wutee ci taarixu baat bi wax naa la ko ci jamonoy saxaaba ya jamonoy taabiina jamono taabii taabiina yi baat bi nekkoon fi waaye garaad yee taxoon mënta fés comportement bi nag moom fésoon na ndax ci diine la bokk dafa duggee ko ci maqaamaab ihsaan loola tamit noonu lañu wutee ci maanaawu baat bi baata tasawuf maanaam yi wax naa la baat bi luxatan li muy tekki léegi maanaami yi maanaam yi Sidi Ahmad ibnu Saruq nee na tasiidu ala alfayni xëpp na ñaari junne maanaam al alaamatu ibnu damiya arribatiyu wax na ca safha juróom-ñeent ci téere bi nga tuddee tahrirul manaat wal masalik ni tamit maanaam yi ëpp na ñaari junne baat Ah, imaamu sarqaani yi mi ngeen xam boo demee ki sarahul mawaahibu ladani yi moo ko def mu ne maanaam maanaam yi dana ëpp junne yi maanaam boo demee ci wax naa la ko seyqu saruq ci qaidatu thaniya lim na maanaama bind ko firi ko mu ëpp ñaari junney maanaam waaye ànd ak loola lépp baat yaa maanaama waaye boo jëloon maanaam yëpp boo koy dàq Ah, boo demee kii di saratu saafiya euh, mu ne lépp dafay dellu rek li sidqi tawajjuhi ilallaahi wa tarjiu kullaha li sidqi tawajjuhi ilallaahi wa innama hiya wujuhun fii nag xanam yaa wuutee rek waaye lépp boo ko jëlee ma ngay dellu ci dëggal jubluwaay jëm ci yàlla mutasawifuna yëpp waxuma ña koy tuddee te du fekk duhuñu ko waaye ña doon piir seen mbir lépp mooy dëggal seen jubluwaay jëm ci yàlla bu ko defee nag moo tax saahir baa ngay wax ca maanaa ye ne walinnaasi fii maana tasawufi awjuhun tuniifu alal alfayni fadril maxsala wa yarjiu maxnaaha jamian li waxidin bi xayri ixtilaafin fi lxaqiqati awala te wajjuhi abdin lillahi bi azmihi ala qadamil ixlaasi wal xawfi muqbila rek ci lay dellu mu ne nit ñi wuute nañ ci maanaam tasawuf wuute goo xam ne dana ëpp ñaari junne waaye lépp ma ngay dellu rek ci lenn gannaaw boo xam ne wuute xamut ca loola mooy dëggal jubluwaay jëm ci rabbul isati wal jabaroot yow rek la boo demee ca ibnu daniya ca safaab juróom-ñett ci téere bi ma la wax wax na ca tabaarakallaahu lu mat fukki wax ci maanaaw tasawuf di wax maanaami firi mi comme ni ko nuuru diin waxee ca téereem bu ñuy tuddee tabaarakallaahu bi suufiyatu ñu tuddee téere ba fil islaam as suufiyatu fil islaam wax na ca fukki wax naka noonu wax na ko ba ca njëkk dafa wax ne at tasawuf ad duxulu fi kulli xuluqin sunniyin wal xuruju min kulli xuluqin daniyin bu la nga ne at tasawufu ad duxulu fi kulli xuluqin sanniyin wal xuruju min kulli xuluqin daniyin mu ne daal tasawuf du dara mooy tàbbi ci mbooleem jikkoju kawe ak génn ci mbooleem jukko ju suufe kon pour nga nekk suufe yu mbooleem jukko ju suufe bu la ci kenn fekk bul wax wax ju suufe bul jëf-jëf ju suufe bul amee pas-pas bu suufee bul comportement comportement bu suufe kon wii melokaan kay ñu bëgg a baax ñëpp ci lañ bokk imaamu Junayd yu firi ko ne a tasawufu an yu miitakal xaq an wa yuxyika bii junaydu yi nee na tasawuf daal du dara lu dul na la dëgg rey dëgg dekkil la yow daal booy dund na fekk dëgg tax ngay dund booy dee na fekk dëgg tax ci ngay dee loolu kay ñëpp ci lañ bokk ñi bëgg a baax lépp naka noonu boo jëlee abil hasan asar waaniyu mu ne daal assuufiyu huwa alladi yakunu ma alwaaridaat laa maal awraat mu ne suufi mooy koo xam ne la koy alimenté waaridaatul ilaahi lay doon ay leer yuy rot di ko ca xadara ba waaye duwut ay ay yu dog yi wirdo yuñ lay jox moom noonu la ko firee boo jëlee abi bakar shabli moom dafa ne a tasawuf dabtu xawaasika wa muraaxaati anfaasika loolu koy yëpp ca bokk mooy fexe ba takk say yëg-yëg waaye fexe bay sàmmwanteeg sa noy benn bu ci nekk bu mu jàll lu dul ci li ko yàlla bëgg mu cay jàll noy bu nekk rek muy jàll ci ni ko yàlla bëggee bu loolu amu rek pertement nga kon moom noonu la ko fidee noonu la ko firee ruway mu ruway mul baxdaadi yu moom dafa ne tasawuf ni yoon salaasi xisaalin mu ne dañ koo tabax ci ñetti jikko tamassuku bil faqri wal iftiqaari wa taxaququ bil basli wal isaari wa tarku taarudi wal ixtiyaari noonu noonu la ko firee mu ne tasawuf daal mooy jafandu ci ñakk ni yàlla taggee lil foqaraa yi léegi ak xaajoo jëm ci yàlla nga nekk dëggu ci yuus ni la yàlla jox mu tuuti mu bari nga joxe ko ba nga dem sax bay dund ci isaar li nga am soxla nga joxe ko yaakaar ne ki ma koy jox moo a ci ëpp soxla wa yuusiruuna alaa anfusihim walaw kaana bihim xasaasa kon ku nay mënoo cee bokk waaye tamit mu ne nga bàyyi ak gaarlu ak bàyyi lépp luy tànnalu lépp lu yàlla dogal rek nga gërëm ko doo tànn dara yow daal lu yàlla dogal rek gërëm nga ko noonu moom la ko firéer wóy bu borom xam-xam bu mag boobu kon wax yi yëpp rafet na waaye boo ko jëlee ba ca gën a sell gën caa rafet mooy ni ko abil hasan chazali yu firee mu ne atasawufu tadribu nafsi ala al ubudiyati wa radduha li ahkaami daal ñu ne boobu moo ci gën a rafet mooy tàggat sa bakkan bile ci ak njaam fexe di sellal ak jaamu di dëggal ak njaam delloo bakkan bi lépp ci xatte yàlla yi lu yàlla xatte rek nga gërëm ko def ca la nga man ci lim santaane la mu tere nga jàpp ne posan la bàyyi lépp bu jege dara waaye lii ñi bëgg a baax ñëpp ci lañ bokkoon ah kon nag ah, noonu lañ tànnee ñu ne waxam jóg rafet na mais nag dafa mel ni wax jii ma bëgg a wax ñu ne moo ko gën a rafet benn suufi bu mag wax ko mu ne man safat sarairuhu wastaqaamat alal kitaabi wa sunnati zawahiruhu mu ne suufi yu pire mooy koo xam li nëbb ci moom dafa set dafa sell bu ko neexoon mën na ko présenter ci place publique yi xolam ba set na sell na amul ngistal amul rëy amul bëgg àdduna amul bëgg daraja amul bëgg alal amul benn xeeti jàngoro bu ca ne moom daal safat sarairuhu wastaqaamat alal kitaabi wa sunna zawahiruhu zahiram nag dafa dafa dafa jub dàq ci jëfee kitaab ak sunna kon boo ne suufi laa doo sukkandiku ci alquran sukkandikoo loo ci sunna bokkoo moo tax kon suufi yu yombut lim yombut a tax ñu bari di ko kontu ndax lii bokkut a yombut benn la ay benn benn la ci ay junne bu la nee nga ne benn benn lañ tabaarakallaahu ci ay million moo tax suñu Abbas Sall ne ña koy woote mu ne lu doy waar la bu ñu wax mën a suufi mu ne lu jafe la ña koy woote xamuñ ko ña leen weddi xamuñ ko su boobaa kon problème dafay mujj xam moo tax Cheikh na Ahmada Tijani daan wax ne moom mi nga xam ne mooy kilifa ak mutasawwifiina yëpp dafa daan wax ne euh, lépp lu ngeen dégg ne maa ko wax wala maa ko jëf na ngeen ko peese ak sariya su dëppoo moom sama wax sama jëf. bu dëppoo wut ak dañ ma koo askane waaye waxuma ko jëfuma ko nit ku baax ku nekk nag askanee nañ ko lu mu wax te fekk waxut ko mbaa ñu askanee ko lu mu jëf te jëfut ko fekk dañ ko waxoon ne ko ndax dañ la duutal danañ la naral bu ne ak kay sama maam yonantu bee gën ñëpp te duutal nañ ko waxal nañ ko lu mu waxut ba muy wax ne man mu am kasaba alay mutaamidan falyatabawa maqaadahu naar na naar képp koo xam ne yaa ngi may euh, naral ci ay te yaa ko tay préparer sa dëkkuwaay Euh, sa ca safara préparé sa delluwaay ci safara kon kooka duutal nañ ko muy artu nit ña seex nag ñu ne ko ndax yow nag mu ne ah duutal waaye luñ ma mën a waxalati la lañ ko sariya kooku suuf moo tax maam Xalifa ngi koy wax ca téeréem ba juusu tulax ne alaysa qaala cheikhu fil ifaada qawlan rawathu l ulamaau saada ida samictum ma lii fa sinuuh bi charci falas xaalafa charcu wa annahu laysa yaqulu gayra ma yuwaafiqu sharca wa man lahu ntama mu ne xanaa cheikh waxul ci téere bu ñu tuddee al ifadatul ahmadiya moom sax la borom téere ba ubbee tiitir ba ne lu ngeen dégg ne maa ko wax mbaa ko jëf peese leen kook sariya man sariya dong laay dund alkitaab wa sunna kenn mënu ci ci feeñ ak ci lu nëbb su ngeen ko peesee nanguut waxuma jëfuma maa ko sori maa ngi koy sori lu képp ku ma ànd ak man su ngeen ko peesee mu nangu maa nga ca te maa ngi ko képp ku ànd ak man mu nekk ca xam nga kii naxu kenn lu leer la yaa ko xamu di ko weddi rek ak xamu ku mel ni moom tamit tabaarakallaahu ci tedd nga di ko weddi waaye loolu leer na naññi loolu njiit yiñ topp yëpp ñi mu ñoo wax loolu waaye moom tabaarakallaahu ak moromam mutasawwifoon yi loolu lañ jëm ñi wax ko kon nag ñooñu naxuñu kenn li ñuy wax lu leer a leer a leer la su ko defee nag bala nga koo peese na fekk nga xam poids ba waaye bu seex waxee ton yow nga xam poids wu liibar soo ko peesee du dem ndax da bàyyi ba am xam boo mën a peesee waxam ja waaye soo amul xam-xam bu mën a peesee waxam ja mu wax rek nga jàllal bi ko di ko wax ci fu nekk di jéem a contre te xamuloo da ngay àl kon euh, na ngeen ko peese jooju na fekk nga am poids ba de ko amul poids mënta peese dara ba ko kon loolu tamit wax ju rëy rëy rëy la te loolu ma wax bi ngi fees tepp ci kutubu tariqa bi ñuy wax loolu bala nga koo peese na fekk nga am poids ba boo ko xamut teg ko fa mën a goo peese demal wuti demal wuti poids ba xam dégg muy wax demal nga liri Jawaahirul Maani ba dégg ni cheikh bi waxee bala nga koo kontu demal nga seet am ibn Misri ba nga nga seet poids ba muy waxee ba nga am ko bala nga koo contre mun sax mënoo koo am pa poids booba mais nga am poids boo mën a peese demal nga seeti iraa demal nga seeti risalatu safiya demal nga seeti yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabaarakallaahu bala ngaa dal ca loola di ko jéem a weddi te fekk ne la ngay weddi dëgg la yaa xamut la saay ba ne xoon wa kam min aibin qawlan saxihan fekk wa afatuhu min al fahmi saqimu bëri na kuy ayibal wax ju wér fekk ah kay wax ja wér na moom ma koy ayibal déggam moo feebar su boobaa nag kon dafay dem faju ji ba wér rek su boobaa dana mën a xam ne nekk wax ji ma doon weddi ju wér a wér a wér la kon nag tabaarakallaahu xam-xamu ihsaan wax naa la ko euh, euh, maanaam euh, maqaama bu ñu tuddee ihsaan ma junjoon la ko léegi ci la lii nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf tabaarakallaahu ci ci moom la génnee Euh, waxoon naa la ihsaan ak euh, ñetti ñaari maqamaam ya ci almuraqabatul kubra ak almuraqabatu sugra waxoon naa la al ihsaan ak sëtam ya mushahadatoog tabarakallahu ak euh, tabarakallah ak muraqaba ak al maarifa yooyu yëpp junjaloon naa la ko su ko defee nag kon ma cër baa ngoog ak la xaju Euh, xam naa ne nag euh, boo ma toppee suba ci waxtu wi ci kartanal yàlla danaa ñëw sof ak yow li ma sos ak yow ci wàllu tasawuf mii nga xam ne euh, dafa génne ci maqaamaat ihsaan naa la wax xaadimu rasul si Ahmad Bamba lam ca wax ci téere bu ngi tuddee masalikul jinaan ci ñaari xam-xam yaak seen wuute ya ak nam ko indee bu subaa bu ñu fi yàlla bàyyee loolu mooy nekk suñu boppu darsu yàlla na yàlla yóbbu ñu ca defal ñu tawfiix ak taysiir defal ñu naataange ak barke xiir ñu ci boppam benn la jullit ñi ci barkeeb sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu